booy booy booy billaahi dinaa la màtt baax na bu ñaaraate ma màtt la de. ma ko noo ngi noonu di sang mbër mi ma ko noo ngi sang mbër mi mbër maa ngi sangu ñu ngi sang mbër mi defal nañ ko ab teen ba pare defal ko gura mbër maa ngi noonu Gemeinde Mehl

borom casque borom casque daanul magam la borom casque bu magam